de presse. yéen kay El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah. Benno Bokk Yaakaar tas na de laas ne élection Sénat bi a moo waral kon coow la terminé yéen a kaay ne c'est de l'imposture ca Sénat googu neexul premier adjoint maire ci diwaanu Medina gii mooy Bamba Fall la Bamba Fall ne Macky Sall ci boppam li mu bëgg ci boppam moo yomb ah waaw waaw parce que yow Macky Sall saay bu ñu demee ci ay élection mu ñuy bëgg a gëmloo ne seddoo gi daal mi ngi dépendant ci résultat élection présidentielle ba ca premier tour ba Bamba Fall ne bi ñuy ànd ak Macky Sall kon di ko jàppale ak di ko gunge dañoo àndoon ak moom ngir mu dakkal li nga xam ne kon moom la fi Abdoulaye Wade nekkee woon waaye nag bu dee a bopp ko ësle ne moom la fi Abdoulaye Wade nekkee woon Ablaye nekkatu fi ñin bu ñu demee ca Sénat ba dañu naan déedéet ba tëdd ca suuf waaye parti socialiste ji ci tribune yéene kaay ne Macky Sall bi mu fi bëggee nekk maire bu Fatick ba daa àndoon ak waa Benno Siggil Sénégal ca Fatick waaye ci Dakar ji bi mu bëggulee fal kii di Khalifa Sall daa demal ak liste boppam di dekkal ngox moom Macky Sall résultat yi la mu jur ñëpp xam nañ ko waa léegi lan mooy ndeyu ab minorité nit ñoo xam ni matuñu sax juróom fukk ci ay élu bëgg a jiite majorité boo xam ni ëppal nañu juróom-ñetti téeméer ci ay élu réew mi quotidien Bokk Yaakaar jaay am na ñu fay ne te duñ leen foteel dañu loon wax naan kon rupture am na ci dëkk bi la woon woon ni na Walf Grand Place ne maanaam Abdoulaye Wade la nga xam ne moo gën a tax ba sénégalais duñu ko ko baal ba ilaa yow mi diin mooy jël njabootam gi laa lay wax nii teg leen kon ci bopp réew mi le waaye booy xool ba ci biir tamit bi Macky Sall dikkee ak léegi lu ni mel daa mel ne soppeekul de côté boobee doxul de ah, maa la wax li te li koy mandargaal mooy Macky Sall ba mu dikkee njabootam gi ñu ci baree bari da leen a fal ba ñenn ñi kon di wax ne ay tojaange ci mbirum deret kon Macky Sall da koy def di ay ma Aliou Sall da koo jël kon def ko ab conseiller Macky Sall yamu ca jël doomu jage Sall mais def ko kon président conseil d' administration Macky Sall yamu ca goro jabar ja ca boppam goro Marème Faye ca boppam di Abdourahmane Seck ñu gën ko xam ci Homer moom la jël kon def ko président conseil d' bu Petrosen Macky Sall yamu ca jëlati kon beneen doomu nijaayam Abdoulaye Timbo def ko directeur général bu FNPJ yamu ca moom Macky Sall doomu turandoo Macky Sall ci boppam président góor gën ko tuddee di Macky Gassama waaw doomu Macky Gassama koo gée di Ndeye Binta Gassama la Macky Sall kon jël def ko président conseil d'administration encore yéen a kaay gi ne c'est bon d'être parent de président au Sénégal maa la wax li ma ne la bokk ak président déret ngeen nekk ay mbokk daa neex ci Sénégal gii tribune yéen a kaay ne maa xamal benn affaire bi lii raam ca ñàkk wala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a kër Macky Sall gée li ko yàq nañu bàyyiwaat Sénat bi li koy yàqal ca lay bokk de Macky Sall ngi nii yu bakkanee bakkane yoo xam ne kon magistrat ak généraux waaw dañu koo yore woon Macky Sall ni ko ronket nangu ko ca ñoom te ni ca jamono jooj te muy ronk loolee ca ñoom Macky ngi jël fukki million di ko jox kon ministres yi ñuy dugal seeni poos Macky yemu ca jëlati lu ci tolloog ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay 4 4 séddale ko député yeeg xaw ma sénateurs yi ma am ndey ku ma amul la ñu nimiku kon ca lëf kon ca mbirum Cheikh Béthio cantaku ni ci l'office yéen kaay ne Cheikh Béthio Thioune day gars yi dañ ko doon woo ci ruq ndeke ngir négocier ak moom wàllum médiation jubóole wàllum arrangement Cheikh Béthio Thioune lank ndaari ba tëdd ca suuf te bu ñu waxoon ñan ñoo doon négocier ak Cheikh bi doo leen ko gëm Ibrahima bokku mbokk ca cantakun yoo jee nee na ñun dañoo comprendre lan mooy ndayu yow ab rapport di kayit woo xam ne ki ñu toftal ci procureur moo ko yore woon mbir a ne ministre de la justice tamit day jël na wàllam tamit ca xas ya cantakku ni ci l'office yéene kaay ne bu dee justice bi kon dafay nekkal ñëpp lan moo tax ba Medinatul Salaam gaye keroog ba ñuy jëli seex bi lu ci toll ak ñeenti téeméer ci ay agents des éléments de défense et de force de sécurité ay takk der yoo xam ne kenn xamul na ñu toll ñan nga takk seen kanam yo muur ko maskawu yor ay ngànnaay ba maar dey taali te yow loolee yóbbuwoon ab convocation kese ci ab simple citoyen kese lu fa ñooñee ñëpp di def taalibe beccoo ci grand place ne cheikh daal moom Béthio Thioune lañ naan rupture la woon woon ni na moom daal mooy victime ba moo ca loru la de le pays au quotidien ne bi nga xam ne kon sampoon nañ ko fi ngir ñi nga xam ne dañoo ne dañoo sàcc kon alalu askan wi foofee kon lañ leen di àtte tribunal ba kon doxul doxul mbir ma kon tekkatémbe na enquête yéen kay ne moo ni dossier yi day ah am na ca yoo xam ne kon takk nañ ko ba mu dëgër jébbale nañu ko Karim Wade Abdoulaye Diop Omar Sarr ak Awa Ndiaye ak ñeneen la ñu teg ba dee laas ne man daal ma leen waxoon kon du dañ parce que li ñuy wax daa leer nañ duñu weddi confrère ku am sa mise au point di ko fi indi duñ la ko fi defal loolee principe métier mi la maanaam di weddi sa naataango journaliste ñin laa fii amu fi te ko fi def waaye nag malheureusement am na ci yenn ci ay naataango nekk ci ay organe de presse yoo xam ni concurrence malsaine wujjegu bon ngoo xam ni laluñ ko ci yoon ci week-end bii ñin waa laas dañoo xamle woon ne déglu bi nga xam ne kon waroon nañ koo déglu Souleymane Ndéné Ndiaye Sindiély Wade Maître Madické Niang Ousmane Masseck Ndiaye Oumar Sarr Aminata Niane Mamadou Seck nekk Sitor Ndour Ibrahima Aka Bourgi loolee lépp mujjul nekk suñu naataango yi ne mes dem yaay booyoo di profité kon di laaj Mimi Touré ministre de la justice Aminata Touré pour wax loo ñu loo xam ne maanaam ñun binduñu ko laas tey nag nous maintenons nos écrits nous n'y changeons aucune virgule la ñu bindoon tey lañ ko gën a bind dañu ci teggi dara ba dara booloo jeex ñaw dem naa ca làmb ja lootoo yéene kay ne Lamine Samba day ak émission boobee muy def ci télé bi ah indi na kon ab pëccaxoo bu rëy ci biir làmb ji si naka parce que xam nga Lamine Samba kat daa seeti woon kii di Eumeu Sène def ak moom émission yéene kaay gi ne Lamine Samba ca kër Eumeu Sène njiital tay singa la commencé laaj ko am Eumeu Sène yi dóor ba dóoraale sa Balla Gaye numéro 2 Lamine Samba ne fa saax dem seeti ko encore ndorteelu émission bi kat Balla Gaye numéro 2 nee na Lamine Samba man seetaanuma sa émission bi ak Eumeu Sène de waaye Lamine Samba kaddu yi Eumeu Sène yëpp mu dem nettali ko Balla Gaye 2 ne ko Eumeu Sène daal nee na la lii na la lee moo ne la lii moo ne la lee nettali ko tout Balla Gaye numéro 2 tamit fayu ba maara deytaali doo xeer Eumeu Sène ba dóoraale Modou Lo kon ay xeer ñu ne Lamine Samba fa lay yëpp ñu ne déedéet mu dem seeteeti Modou Lo Modou Lo tamit fayu daal di kon attaqué tamit Balla Gaye numéro 2 daal di koy gay ndaw géejawaay gée d'accord ñu benn yoon ci ni nga xam ne noo ne la Lamine Samba kon di doxalee Alioune Diaw ma yor kon kaddu école de lutte Balla Gaye ne Balla Gaye numéro 2 ak Modou amoon nañ ay jafe-jafe dëgg la ba Alaaji Malick Gakou ak Alaaji Mansour Mbaye leen juboole ndax njabootug làmb kan njaboot gu yaatoo yaatu la li koy mandargaal mooy boo ñaa deux mii bi ñu ko sanctionné ñiy yëngu ci wàllu làmb yépp ñoo mujj jëgg sàkku ci CNG bi wax lii Alioune Diaw ne Pikine ak Guédiawaye Parcelles yëpp benn lañu punka lii chaque jour dañuy daje war di joxante tamit cër ak respect Samba émission bi dara kon baaxu ca jàpp laa lay wax nii xoolal kàddu mbër yi di ko déformé lu mi wax mu dem wax ka ca des ne ko keelee la wax di jàddal ay waxu jàmbur émission géwél bu ndaw bii di Lamine Samba yàq lay def de parce que média yi li ñu war a def mooy boole xolu mbër yëpp ñu doon benn waaye safaan wi la ñu gis kon Lamine Samba di def di yàq làmb di di di di di oh oh <laughs> alaaji ñun dey ndax da nga dul dikk ci la ñuy yëngu defante suñu baax alaaji tëjal tijil kon